asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi seen bokki taalibe Fallou Galass Syll la del si waat na de tubaa yooni waat ko tey jii ci gaaw bi yemoo ak la 11 novembre Touba de yónni woon na ma gaaw bee weesu guy mbind ngeen gis tali ba nam mel ak nam yàqo ak ndox ma fa ne borom kër yee jàmbat mais xamuñu kan lañ koy jàmbat tubaa bi ma tëddee rek ma xëy yónni waat ma na ma boo xëyee nag tey awal yoonu Gede ma jël route de bi bi ma ñëwee bay romb kër Mbacke Kébé rek ba war a si tëli bi nga xam ne mooy dëgmal jëm de dëgg Dakar benn bi jàdd jëm kër suñ basum suñ Abdou Khadir bokk yi gis leen toj toj yi xoolal sax oto bii moom far dafee par gaare moom amatul fenn fu mu jëm xoolal oto yi ni ñuy dugg ci toj toj yi bokk yi lii tëli la boo xam ne dañ ko financé woon ñu ñàkk ci ay millions Ageroute wala yor entretien bi ana waa Ageroute ñi yor waa Ageroute ñi yor route bi nga xam ne ñoo yor tëli yi ana ñu am li ñuy defar ci tëli entretien da cee bokkut Touba ma koy laaj loo de du samay wax Touba ma ne laajal leen ma ba xam tëli entretien da cee bokkut wala déet mbokk yi xool leen canal bi ab canal kay xanaa day nekk fa ndox may taa waaye bu tiimee fa ndox may taa nan lay mën a yóbboo ndox mi xoolal tëli bi ni mbartalikoo xoolal fi oto bi paan nga xam ne fi la digg ndox mi nekk nekk ci entresection bi fi la kanaal bi waroon na ne waaye ñu dem ba ca koñ ba ñu teg ko fa nga xam ne daa tiim ndox mi moom kii de yaakaar naa ne potit mi daal la mën a yóbbu waaye mënut a yóbbu am ndox waaye bokk yi topp ma rek ñëwal ci toj-toj bi xoolal oto yi dañ koy duggee lii moom kàmb la goo xam ne gis ngeen ndox mi kañ la fiy jóg ndax mi ngi ci biir kàmb gi waaye xoolal kër gi mu féeteel gii kër moom seeni borom abandonné nañ ko ndax xamatuñ ni ñuy def xoolal garab yi lii mel ne ab sécheresse ndaa mel ne danga ko fekk ci digg àll boo xam ne kenn xamut nu mel tem na ci biir dëkk bi moo ne boo jógee ci dëkk kër googu de Touba nee na ma bul tàyyal dugal ma ci geneen kër gi nga xamante ne bii xoolal waa kër gi xoolal tëli bi ni mu jàkk kër gi ni mu jàkkaarloog tëli bi borom de moo ne mi ngi góorgóorlu day sëkk bu sëkkee ba mu àgg mu bétonné karle waaye avance waat xoolal ndox mi xoolal ëtt bi ni mel xoolal ma ëtt bi ni mel fii fu ñu fiy jaar xoolal sëñ be ndeysaan fa mu toog ak ni mu doone mag lal ab ba waaye fi mu tel tamit jàppee na boppam comme mbott rek wala yoo naa dund ci ndox mi rek ndax aw ma mëneen pexe walaay noonu rek la mën a demee ñoom dañuy jàpp seen bopp ay mbot wala ñu jàpp seen bopp ay yoo ndax lan amuñ fuñ dund ah, li yaakaar naa ne ku ko réewut xamoo dara de bokk yoo xoolal ma ndox mi ay wàjjile Touba nee na Touba nee na ba kañ tubaa nee na ndax li dañ koy waat mu nawetaat jafe-jafe boobu moo am waaye damay dugg ci biir kër gi fekk fi borom kër gi sëñ bi noo sant Faal la naam Faal loxo bi Faal Silla Faalu Gala Silla sëñ Mor Faal ah, sëñ Mor ma dugg ci sa biir kër gi dégg naa jafe-jafe am ah, nañ dem ma xool waaw kon ma ànd ak sama caméraman rek dugg ci biir kër gi bisimilah yaakaar naa ne gis ngeen kër googu mu li fi nekk ci ay jafe waaye kër gi ma jaar nag eh, kër damaa xamagut lu may gis nag bokk yi eh, kër gaa ngi nii maa ngi dugg ci biir xeexee mbokk ah li mbokk yi du ma ko wax sama maan moo koy génne sama maan moom mi koy wan ah waa sëñ Fall nii la kër gi demee. yow sa néegu bopp moo nekk nii. keroog ba mu tawee taw bu njëkk. Ah. bët set bi ba fii nii. Hmm. dugguma ci laal yaag téere yëpp ma teree. fii nga daan fanaan. déedéet dama ko mujj génn maanaam ndox maa ngi nii ci biir ba tey. maanaam fii nga dëkkoon yow. fii laa dëkkoon. taw bee la fi génne. taw bee la fi génne keroog bu ba hmm. fi mu ne. ba fi fi ba fi tey bi sama soxna son taw laay tëddal fee ne fee fee ca département bi. allahu akbar kër gi nag kër kilifa la woon sama papa ak maman. Hmm. ñun ñëpp samay rakk lañu moom. sa papa nu mu tuddoon. Cheikh Fall. sëñ Cheikh Fall waaye wàcc na liggéey bu yàgg. waaw waaw yow yaa fi nekk di. waaw ah, waaw doon teel bi sëñ sëñ Bissirou Mbacke. Hmm. nii rek la demee. nii rek la demee. ci nii ngeen di nga manqué ba yi boo ñu demoon nañ ba jël machine ñoom ñu demoon jël ba waaye bu ñu ko manqué ba mu ñaar fa ak ñett dellu siwaat keroog bu ba si bëgg léegi ah bokk yi lii day la ma waxoon sànq na waa kër gi day dañuy mujj rek gis ngeen mbott yi nii ñuy def ci ndox mi ñoom ñoom ay yem képp rek dund ci ndox mi rek ak yooyu waaw waaw waxuma dara waaye yooyu yooy nan la ko gone di supporter ah lii de dugg leen ci biir léegi xool leen jigéen ñi ñoom ñëpp a tum de. ñetti màggal a ngi ñetti màggal. kii moom mhm. fii ñaari soxnaam yi. Mhm. ñaari màggal yi fi ñu fi ndax kër yi dañu mujj dem nañ fii ne jigéen mooy laaj kan moo koy taxawu kan mooy taxawu waa këram kan mooy taxawu population bu Touba jafe-jafe yi ñuy dund lii da laaj la ndax li état yëg na ko ndax ñi leen fi nekkal yëg nañ ko ndax ñii yëg nañ ne Sénégal a ngi développé ndax ñii yëg nañ ne réew mi neex na déedéet yëguñ ko de kuy dund lii xam nga ne bu ñu nee réew mi neex na dañ lay nax dañ koy bàyyi mu newetaat route bi ab corniche la de route bii ab corniche la boo xam ne boo ko toppee da ngay wëraat dëkk bi waaye daal <laughs> doy na waar de ma nga jege ci toli Daaru Musti ba xëttale ko Tuuba toli ñëwaat ñëw dugg si tali bi nga xamante ne bii moo jëm route de Belel. continuer da ngay dem dag tali Gédé ba wër ko dem gaar bu mag li tali bu baax la sëñ bi waaye lan bàyyi nañ ko nii de mu yàqu oto yi amuñu fun jaar borom kër yi amuñu menn pexe man nag tubaa rek moom moom mooy mooy gisal boppam boppam xam fi ay jafe-jafeem nekk su xëyee ne ma demal ma ci mbedd yi demal ma ci kër yi waneel ma samay jafe-jafe bokk yi lii ay jafe-jafe la de moo ne day kuy wut réew mi da ngay diggee lu ne lu ne ngay diggee lu ne ngay digee waaye boo jotee ci réew mi daal day mel ne da ngaa fàtte waa te bu ñu waxee ñu ne Touba liñ ciy dugal ci million liñ ciy dugal ci milliard Touba rombante nag loolu ëpp na loolu amul benn département bu ne ci Sénégal bu Touba ëppul amul ci Sénégal moo fi ëpp population moo fi ëpp lu muy dugal ci économie bu Sénégal moo fi ëpp ay événement waaye lan mooy tax ñu yemale Touba ak faneen bokk yi lii ba kañ ndax état moo ñu koy defal wala ñoo koy defaraal suñu bokk bokk yi daal lii mer gembu rek la war a laaj mer gembu mooy bala ñoo waxatee kenn moom nañ xam ku ñuy defaral suñu dëkk bii di Touba ndax ci biir réew mi lañ dëkk yor ab commune mu ne ci ab département département bi ne ci ab région région bi nekk ci biir am réew réew mi tudd Sénégal ñoo am ay carte d'identité am ay carte électeur di ay opérateur économique ak ay commerçant di di investir bu baax ci économie bu Sénégal waaye xoolee nañ ñu seetaane lii daal lii daal daal ak tumuranke féetewu ko kaw man nag bokk yi waxuma Touba may wax loo rek bu kenn mere Fallou Galass Syll kuy mere daal mereel Touba kuy jàmbatit demal ci Touba na ko bul yónnee te Fallou Galass Syll ndax man kenn yónni wu ma Touba ma yónni li feeg mi ngi ma yónni nag maa ngi dox kon nag wax leen ak waa Touba te bu wax leen ak Touba te bu leen wax waa Touba wax leen ak Touba rek Touba moom dëkk la boo xam ne ci àjjana la nekk sëñ Touba ñaan ne mislas miha bi jaahi xayri man abad def na ñaan yàlla dëkk bi mu mel ne aw turandoom ci àjjana kon nag bu fekkente ni bi nii la mel ndax lii ñaan gi ñun bokk nañ ci ñi koy gàttandu ab laajte de Touba mu fi yónni woon ci gaaw bi yemoog la 11 décembre seen bokk taalibe Fallou Galass Syll àndoon koog yéen ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu